lieutenant colonel Alioune Diop jiite légion gendarmerie bi nekk ci Thiès ñi ngi dëgmal si gàmmu Tiwaawoon ak bu Njaasaan atum 2023 gendarmerie bi mu koy faral di defee jël na ay matuwaay yu mat sëkk ngir yombale nit ñi dem beeg dikk bi si fànn boobu sax si la ki jiite gendarmerie di général de corps d'armée Moussa Fall ñëwee seet suñu fii si Tiwaawoon ngir ñaax ñu ci liggéey bi ñuy waaj a def feddali sasam si ñun bi mu fi jógee si la dem ziyaara xalif général des Tidiane ngir dalal xelam si kaaraange bi ñu nar a jël si gàmmu gi ba pare jébbal ko ndimbalu gendarmerie ci gàmmu gi si wàllu kaaraange googu 2600 gendarme 150 woto

jox nañ ko waa Grand Train du Sénégal ngir aar ñi nga xam ne ñoo bëgg jël train bi ngir dëgmal si Tiwaawoon dañoo seetlu ne yoon bi ñuy wooyee route nationale numéro 2 mooy bi jàll Tiwaawoon romb Mexe jëm ak bi ñuy wooyee route nationale numéro 8 ñu koy wooye route ñaay bi jëm Mboro ba Yaax jëm ba kilomètre 50 dañoo seetlu ne yoon yu xat la bari na ay doo daan te ku si deful nank sooy daw xel tem nga def jéya mor ñuy ñaax nit ñi ñu def nank si yoon yooyu ku si dawal ba sonn nga noppalu ñu topp ko de la route ñiy jël saxaar si di ñëw leen ni aaya pour ñu si kaw wagon yi képp ku am jafe-jafe si yoon bi wala lépp lu la jaaxal mën nga woo gendarmerie si ñaar numéro vert muy 1 2 3 wala 800 00 20 20 gendarmerie ñing ñaanal ak